salaamaaleykum mbooloo mi fi daje ñu ngi leen di nuyu bis bi li ñu fi war a def kàddu moo ci gën a néew te dafa mel ni kàddu yaa ngi bëgg a bari te kii toog jëmm ju tedd ji ak njabootam gu tedd gi nga xamante ni moo nu boole yilif kenn tey moo fi sunu baay di sëriñ Mansour si mi teewal xalifa ba Seydi Aboubacar si bis bii ku fi ñëw ku nekk xam nga ni kenn ko moom moom moomu ca Tiwaawan yal na ko yàlla dolli wér yal na ko yàlla bàyyi ci sunu kanam danu ni rek mënul ñàkk ñu wax kàddu yi nga xamante ni Cheikh Abdoul Aziz daan na ko melal defe naa ñi jot a wax dugg nañu ci biir sunu kàddu nu bëgg rek def ko mu gàtt lool te mooy gannaaw sant sant ñii nga xamante ni ñoonu teral terale nu ñëw fekk lii nga xamante ni bëgg-bëggu kenn la woon muy sunu wëyu Cheikh Abdoul Aziz nii la ko bëgg yëwoon mu ñëw ànd ak njabootu Seydi Hadj Maliki yooni ñu àndandoo séq xadara bi yaakaar naa ni fa mu tëdd tàlli na kii di wëllëreem di soppeem Chérif Mouhamadul Kabir ànd ak wëllëreem bii nga xamante ni ku ko mës a gis Maroc moom mii moo ko invité di Abdoul Latif Bagdouri ànd ak njabootu Seydi Cheikh Ahmed Tijani yaakaar naa ni tey ñii li ñu defal Sénégal Sénégal mënu leen koo fay sikk newul ci ni ku fi teew ku ne yëg nga maamam Seydi Cheikh Ahmed Tijani yëg nga maamam sallallahu alayhi wa sallam sunu yonent kon nag dama koy gàttal cant yëpp wax nañ ko du ma yokkaat damay bàyyi noonu te jaajëfal abnaul xadarati tijaniya ak jeunesse tijane yëpp ci seen taxawaay yàlla na leen yàlla fay te dëgëral leen was wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, asalaamualeykum dafa am ndigal lu rotaat bàyyeekoo ci kilifa yi mooy xam ngeen ni bu ñu fi bëggee wadifa xadara duñ ci am waxtu wu bari dëppoo nañ feek xalif bi sërif Mouhamadul Kabir dëppoo nañ ceeg sëriñ Moustapha ak mboolem kilifa yi fi nekk xalifa bi dafa am discours bu mu waajal uniquement war ko jox bëgg duur yi mu jàng ko sëñ Pam Maxtaar Kebe firi ko ñett làng lañ ko bëggoon a wax arab français ak ci beneen làng muy xalpulaar mais bu njëkk ba mi njëkk tudd moom la ñuy wëyal mooy bag duuri arab la koy jàng Pape Makhtar tënk ko ci wolof ñu def xadaratul juma bu nu jullee timis ba sëlmal ñépp toogaat ñu wazifa daal di ñaanalante yeewi ko jaam ak bëgg-bëggam yàlla dogalam lii la xalifa yi wax lii la kilifa yi wax ñu fekk si leen ci wëyal ko incha allahu taala di baalu ñëpp àq nag te defe naa ñëpp ànd nañu si kon bismillah ñu bàyyi bag duur yi mu jàng discours bi léegi dégg ni mu ko waxee noonu lay deme li Seydi Mouhamadul Kabir wax moom la ñuy jox alhaaji Maxtaar Kebe di sëttu alhaaji Abdul Aziz mu wóolu ko ci ci bari moom ci boppam mooy firi discours bi ku am lu rëy am na lu rëy de ana Maxtaar Aj Maxtaar bismillah Allah naam waaw benn bi rek doy bàyyil ma tëyal. bismillahi rahmani rahim. moo nekk jiw bi sëñ Mahmadul Kabir mooy wax Matar Kebe di kenn. bismillahi rahmani rahim. كلمة تجيهية من مولانا محمد كبير من العبد وربه وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه الرسالة الخالدة الشاملة جاءت لفتح آفاق جديدة وبناء حياة آمنة قائمة على دعائم وركائز من مكارم الأخلاق كما هو واضح في القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة وتعاليم مولانا الشيخ التيجاني رضي الله عنه فبالرجوع إلى الرسائل والإرشادات والتوجيهات التي كان يوجهها إلى الفقراء كان يحذرنا من التقاطع وإهانة حقوق الطريق حقوق إخوان الطريق حيث يقول إياكم ثم إياكم أن يهمل أحدكم حقوق إخوانه مما هو جلب مودة أو دفع مضرة أو إعانة على كربة فإن من ابتلي بتضييع حقوق الإخوان ابتلي بتضييع الحقوق الإلهي الصوفية فالطرق الصوفية لم تؤسس لتفريق الوحدة الإسلامية بينما أسست على تقوى من الله ورضوان كمدارس يتكون فيها أتباعها لتحقيق مقام العبودية بالوسطية قد جاءت طريقتنا التيجانية بالمنهج المعتدل في كل شؤون الحياة منحت للمسلمين منهجا يمتاز بالاعتدال الذي يقوم على حفظ الحياة وامتدادها ورقيها كما تبنى عليه عزة المجتمعات ومجدها فنراها في مجال العبادة تأمر بالأمر الوسطي بلا إفراط ولا تفريط وذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق وعلى هذا الأساس يشعر المريد الصوفي في ظل مجتمعه بتحمل التبعات الساعات والمشاركة في الأزمات إزاء أخيه المسلم الذي يعيش معه في مجتمع واحد تربط وحدة العقيدة وحدة المصالح والأهداف ولقد حرصت الطريقة التيجانية في جميع مسارها المبارك الممتد لأكثر من 200 عام أن تكون عاملة وحدة وألفة وتساكن للمجتمعات المختلفة والبلدان المتعددة التي احتضنتها وانخرط أهلها في سلكها وصارت أكثر طرق أهل لله أتباعا ومريدين ومحبين وما تعدد مشاربها وأسانيدها إلا أكبر دليل على صحة مضمونها التربوي مع توجيه المريد التيجاني إلى أن هذه المشارب والأسانيد المتعددة ليست إلا روافد فائضة عن المعين الأعظم وبحر الفضل الخضم مولانا أحمد التيجاني تاج العارفين وقدوة السالكين رضي الله عنه وعنا به أجمعين لذلك وتقديم والتقدير لسمو هذه الطريقة المباركة واتصالها المباشر بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذه الشريف وحرصا من كل مريد تيجاني على التزامه بما دعا إليه الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه إلى كون هذه الطريقة طريقة تعبدية تربوية أخلاقية سالكة بالمريد إلى الحق سبحانه وتعالى فإنه يلزم كل فقير تيجاني الحرص على عدم عدم إفعام هذه الطريقة المباركة المحمدية الأحمدية في العمل السياسي ولا السعي بها في الحركات والنزاعات القائمة على الاشتغال بالأغراض والمصالح الشخصية التي تتنافى مع مبادئ التربية السلوكية للطريقة التيجانية قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أيها السادة الأمام الماجد إنني ولله الحمد منذ أن شرفني مولانا أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه بالقيام على شؤون الطريقة التجانية ما زلت أعمل على توحيد الصفوف ونبذ الخلاف وتصحيح البناء والرجوع بالطريقة إلى سابق عهدها حيث يسود الإخاء والصدق والمحبة والصفاء وإفراد الوجهة نحو مولانا الشيخ رضي الله عنه لذلك أدعو جميع المنتسبين إلى الطريقة التجانية السياسي في سائر البلدان لا سيما البلاد الإفريقية أن يكونوا متمسكين بالعهد القديم القويم لهذه الطريقة والمنهج المستقيم الذي أسسها علي جدنا وشيخنا مولانا أحمد التيجاني رضي الله عنه وأرضاه فلنتصافح ولنتزاور ولنتحاب ولنتراحم ولو اختلفت أنظارنا فلا تختلف قلوبنا بل ندعو الجميع إلى الاقتباس من حياة الشيخ رضي الله عنه الاقتداء به في سعة صدره وعلو همته وإقباله الدائم على مولاه فالخلفاء والمقدمون والأتباع أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وإن علت مقاماتهم ومراتبهم فإنهم تلاميذ وخدام للشيخ رضي الله عنه يسعون إلى نشر مبادئ الطريقة وتطبيق تعاليمها الواضحة المتمثلة في دعوة الناس إلى حضور الصلوات الخمس في المساجد المساجد والجوامع والزوايا ولزوم حلقات ومجالس الذكر الصباحية والمسائية وبر الوالدين وصلة الرحم وتوقير الحقوق الإنسانية ومداومة قراءة القرآن الكريم بتدبر وتأمل وكثرة الصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الله العارفين به واحترامهم وإعطائهم حقهم هذا ولا يسعنا يسعني إلا أن أعرب عن فائق شكري وعظيم تقديري لجمعية أبناء الحضرة التيجانية منظمة هذه الأيام المباركة أيد الله روادها رئيسا ومؤوسا بنصر مبين من عنده وكافة المتعاونين معهم لنجاح هذا الحدث التاريخي في ديار السنغال وطننا المحبوب وقبل الختام لا بد من رفع أكف الضراعة إلى الله الحنان المنان راجين منه سبحانه وتعالى أن يحفظ الشيخ أبا بكر محمد منصوصي الخليفة العام وأخاه الشيخ الحاج مالك عبد العزيز الدباغ ويكلل جميع المساعي والجهود المبذولة لإسمام أشغال الجامع الكبير جامع الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه بمدينة سيوة والعامرة حتى نصلي فيه معا ونحن جميعا رافلون في أباحول الصحة والعافية والتوفيق كما ندعو لجميع المشايخ وخلفاء الزوايا والمراجع مراكز الصوفية وجميع المرجعيات والقيادات الروحية في هذا البلد المحبوب ونخص بالدعاء مولانا أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه ونصره وفخامة رئيس جمهورية السنغال ولجميع حكام هذا البلد المحبوب إن الله تعالى سميع مجيب الدعاء وما ذلك عليه سبحانه بعزيز وآخر دعوانا أن الحمد لله لله رب العالمين محمد الكبير ابن أحمد التيجاني شيخ الزاوية التيجانية وحرر بدكار يوم الجمعة 29 شعبان 43 400 وألف الموافق لفاسح شهر أبريل عام 22 وألفين ذكركم سيدنا ماذا نفعل نبقى ناخذ عشر دقائق بعدين نقرا الهيئه ان شاء الله النص العربي النص العربي asalaamaaleykum mbokk yi waxtu yi moo xaw a xat waaye bu neexee yàlla danañ ko jox incha allahu alxaaji Fatta ak ñoom xaaji Maxtaar ak euh, kilifa yi nga xam ne ñoo yore euh, xadara bi ñu jéem ci def ay exemplaires yu bare bare bari am na def nañ ko ci français itam su ko defee njaboot gi yëpp danañ ko mën a am ci gàttal sëriñ bi dafa wax ne rek Cherif dafa wax ne mi ngi sant yàlla bu baax a baax bi ko yàlla boole ci fan yu tedd yi nga xam ne njabootu abnaaul xadra at tijaniya mu di mbooloo moo xam ne sëriñ Abdul Aziz Al Amin moo ci joxe woon ndigal yàlla baaxe leen ñu koy organise at mu ñu nekk sëriñ bi nee na shérif nee na kontaan na lool ci ñëw gim ci ñëw nee na xéewal yi màgg na waaye bi ci gën a màgg moo di yàlla boole ñu ci njabootu sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam lawaykat ba wax ne dama bëgg a bëgg ba samay ndëggu xaw naa walbatiku ba laal asamaan te dara waralu ko moo lu dul bu yàlla ne yéen samay jaam ma dugg ci biir def sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam muy suñu yonent nee na mbégte ñaareel mi itam mooy yàlla boole ñu ñu bokk ci njabootu cheikh na tijaani sharif radiallahu anhu tariqam bi nga xam ne école la école la boo xam ne dafay defar ruux ni yaramu doomu aadama di yëg di nit nit di yëgee ci yaram ne am na lu ci nekk mu dem ci docteur mu defal ko seetal ko yaramam ne ko am na lu ci nekk jox ko garab mu naan ko wér nee na tariqa bi itam noonu lay def ruuxu doomu adama nit dana àgg ci foo xam ne wóor na ko ne digganteem ak boroomam am na ay gàllankoor am na lu ko tënk ragal yàlla am demeetul noonu sawaratul ci jaamu yàlla sawarul ci wax lu baax sawarul ci def lu baax du jokk mbokk du rafetal rëy gis boppam naqadi deret gaaw a mer yooyu mooy feebari xol yi nga xam ne nitu yàlla yi ay école ku ca dugg nag bu ñu la jàppee ba defar la ba noppi jox la liñ la war a jox ci ay médicaments spirituels soo fa jógee dana am feebar yoo xam ne danga nga tàqalikoo ak moom te tariqa sidna cheikh bi radiallahu anhu ci loolu la ko yàlla tënk nee na pour ñu mën a dund loolu Cherif nee na yi wépp ñu ngi ci ñu ànd nekk benn ñun jullit ñëpp nag waxul tijaan yi rek waaye ñun jullit yëpp nañu ànd joxante loxo xam na ñoo bokk baatu laa ilaha illallah nee na ay ay ak safaan mi ngi ci tàqalikoo ak wanante ginnaaw loolu dafay tax umma islaamik bi dafay néew doole nee na yàllaa ngi wax ne waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu loolu yéen ñëpp xam ngeen ko jàng ngeen ko nee na diina lislaam ñetti fondement la am bu njëkk moo di al islaam ak iimaan ak ixsaan ixsaan bi firi rafetal nag ci la tasawuf di dugg nekk école boo xam ne nekk méthode boo xam ne itam ku ci jàpp sa digganteek sa borom dana yéwén feebaru xol feebaru ruux yi nga amoon yëpp fa tabarakallahu dana tàqalikook yow nee na bu ñu delloo ci leetar yi nga xam ne maamam Cheikh na Tidiane Chérif daana ko bind jëme ko ci njaboot gi ca fas bokk na ci lim daan dénkaane mooy na ngeen mooy tondiku ba bañ nee neenal xaq yi nga xam ne moo dox ci seen diggante ci lépp loo xam dafay indi cofeel walla muy dàq lor na ngeen ko moytandiku bu baax a baax a baax a baax képp koo xam ne dañu laa nattoo ngay sànq xaq yi dox sa diggante digganteeg say mboq na la wóor ne xàq yi dox sa digganteeg sa borom da nga ko sànq te loolu yàlla nañ ci yàlla boole musal nee na tariqa yi ba ko seeni borom di sos kenn sosu ko pour tàqale unité bi war a am ci diggante njabootu lislaam dañ koo sos mu nekk ay école yoo xam ne ña ca génne ëllëg danañu mën a bokk citoyen yu baax nekk ci pénc mi xam seeni xaq di ko def ñu leen sant ci liggéey ñu di ko def di ko matal li nekk ci seen digganteeg seen boroom itam sëkk bañ ëppal te bañ koo sàggane nee na itam ki nga xam ne moo di taalibe bi nga xam ne jaar na ci école yu mel nii bu nekkee ci biir penc mi dana wormaal képp kuy mbokkam dana wormaal képp ku mbokkal penc mi lépp luy xaq dana ko moytandiku bari na taalibe cheikh buy wax ne maa ngi du salaatul fatixi su ma fa jógee lu ma neex def cheikh attan na ko bu ko cheikh attanee itam mbokk yi rus na ko yanu ëllëg ci kanamu yàlla nee na moom mi ngi sant yàlla bu baax a baax yàlla dogal na muy sëtu Cheikh Tidiane Chérif radiallahu anhu papam di Chérif Sidi Ahmed di doomu Chérif Mouhamadul Kabir Atijani ñu tudd ko maamam di doomu Chérif Mouhamadul Bachir di doomu Chérif Mouhamadul Habib di doomu Cheikh na Tidiane Chérif radiallahu anhu bi ko yàlla tegee ci maqam bii mu toog yàlla teg na ko ci waaye buuru Marok te ku ci nekk xam na kan mooy buuru morok ak li mu symbolisé moom moo def décret li ñuy tudde ab dahir nommé ko ne ko lépp luy aju ci zawaya yi aju ci sa maam Cheikh na Tidiane Chérif ci sa loxo laa ko teg waxuma la foofu waaye ci àdduna bi yépp ci sa loxo laa ko teg nee na dëpp yàlla ràngu ko cër boobu ba léegi itteem yépp moo di fexe ba njabootu Cheikh na Tidiane Cherif radiyallahu anhu ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk benn sëriñ ñoo bokk benn wasiila ñoo bokk benn aji yar ñoo bokk benn aji defar ñu ànd joxante loxo nekk benn nee na loolu rek mooy itteem bokk na ci itam itam njabootu Cheikh na Tidiane Chérif jàpp ci tariqa bi tam moytundi ko folklore yi bañ koo foye tariqa bi du kurus gu rafet rek tariqa bi du mbaxana mu rafet rek tariqa bi du dem naa faas rek ñëw déedéet tariqa bi dafa am ay adab am ay teggin yoo xam ne soo bëggee nekk taalibe cheikh il faut nga jàng ko respecté ko wormaal ko soo ko deful bokk nga ci tarixa bi ci tur waaye ci biir dëgg-dëgg Cherif nee na bokkuloo ci nee na nañu joxante loxo ñun ñëpp nañuy nemmikonte nañu soppante te ñu yërëmante nee na suñuy gis-gis man naa wuute waaye nañu fexe ba suñuy xol bu mu wuute nee na mi ngi woo taalibe yëpp nañu fexe ba roy ci maamam cheikh na tijaani sharif radiallahu anhu jéem ko roy ci ni mu yaatoo woon dënn xajoo ñëpp ju kawe jim amoon cheikh na tijaani sharif radiallahu anhu maamam nee na mosumaa gis lu baax lu dul tàmbali naa ko te itam lu baax lu ma mas a tàmbali ko bàyyi fi ak jeexul fi ak matul nee ak jublu gi bu jublu woon ci yàlla la cay exemple toog na ci zaawiyam benn waaye ñëw jox ko hadiya bu tuuti mu teg ci wetam keneen ñëw jox hadiya bu mag mu teg ci wetam ba mu jógee bay dem mu bàyyi fa hadiya bu mag ba ki ko ko joxoon ne ko sang bi li ma la jox boo ëpp li la kiy jox mu ne ko kii lim ma jox yàlla tax yow li ma jox yàlla taxul dag ma ko jox ngir bëgg ne sa jabar dafa amul doom pour mu am doom te man duma yàlla bay maye doom kon jëlal sa alal nga yóbbu ko nee na xulafaa u yi muqaddam yi taalibe yi ñun ñëpp ak fu ñu mën a nekk ci pewu ak sonk lu cër yi rëy rëy ñun ñëpp njabootu Cheikh na Tidiane Chérif lañu ay taalibeem lañu li ñu tariqa bi dénk nag moo di ñu fexe ba yar njaboot gi ñu fonk seen diine jàng ko bu baax a baax jàng tawxiid nangoo jooxe julli juróom ci jàkka yi ak jumaa yi ak zawaaya dafa bokk ci charte yi maamam tëral nee na sama taalube na ñeme jàkk sama taalube na ñeme juma sama taalibe na ñemee itam toog mbalaanu wasif sidina cheikh am na fu mu waxe ne yow taalibe cheikh bi dëkk bi nga nekk soo fa amee ñaari mbokk wala ñetti mbokk te du ngeen dajee di wasifa di ko defandoo jamaatan da ngeen dem ba génn ci tariqa bi su ngeen ko yëgee ak bu ngeen ko yëgul nee na bokk na ci itam li muy santaane moom tariqa bi di ko jàngale en tant que école moo di njabootu Siidina Cheikh Siidina Cheikh daf leen di imposer pour ñu warmaal seeni way jur Cheikh na Tidiane Chérif nee na sama tariqa ku ko jël te doo warmaal sa ñaari way jur da nga ci génn te kenn mënatu la cee jox bi ci tegu itam nee na nañu fexe ba alquran ñu bàyyi ko xel afdalu zikri qiraatul quran kër yépp bi ci gën mooy jàng alquran si dana cheikh nee na taalibeem lu mu gàtt gàtt bis bi na jàng ñaari xisib bi ci tegu itam mooy nañu baril lu ñuy julli ci sallallahu alayhi wa sallam nañu sopp itam nittu yàlla yëpp bu ñu xas kenn bu ñu ay ayibal kenn nañ leen jox seeni xaq seeni xaq sidina cheikh loolu la santaane nee na ci mujj gi mi ngi yëkkati kàdduy cant ak ngërëm jëmee ko ci association bi nga xam ne moo di abnaul xadra atijaniya nga xam ne ñoo organiser bis bu tedd bi ki ko jiite di cheikh mouhamadul fatta sarr ak ñi koy jàppale ñëpp sëriñ chérif mi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla may leen ndam bu gën a yaatu bi mu ñu may tey ci barke maamam nee na mi ngi balaa muy tëj mi ngi ñaanal suñu borom mi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla wattu sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour xalif général de Tijane ñaanal mbokkam Cheikh Alhaji Malick Abdoul Aziz jumaa ji ñu tàmbali ci Tiwaawan di jumaay Cheikh Alhaji Malick nee na mi ngi tàllal yàlla loxo di ñaan yàlla na jumaa ji sotti bañ ñu nee na ñoom ñu ñëw ànd kook ñun ak umma islamique bi yépp ñu julli ci ànd ak wér ànd ak jaamu ju sëkk yàlla na ko yàlla def ni muy ñaanale xalifa bi sëriñ Babacar noonu lay ñaanale mbooleem kilifa yi nekk biir Sénégal mboolem xulafa u zawaya wal marakis as suufiya ñoom ñëpp mu ngi leen di ñaanal képp ku fi nekk kilifa diine wala nga nekk imam wala nga nekk jàngkati alquran Cherif nee na mi ngi lay tàllal loxo di la nuyu di la jox sa wàccuwaay nee na mi ngi koy tëje nag ñaanal amirul muminin di jalalatul malik Mouhamadin Sadis yàlla na yàlla doole guddal fanam yàlla may ko wér yàlla jàppale ko ci ndimbale jullit ñi dimbale bu muy dimbale lislaam taxawu ko Afrique taxawu ko jaamu yàlla yëpp yàlla ko yàlla fay nee na mi ngi nuyu itam euh, euh, euh, faxamatu rais alxaaji Macky bi nga xamante ne bi moo jiite fii senegal saa buñ fi ñëwee lu ci war ci taxawaay dana ko def ci ñoom mu ngi nuyu ñëpp mi ngi ñaanal ñëpp mbokk yi xanaa ñu yemale ko foofu hada wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon li ci topp xadaratul jumaa bi la ñuy ñaan ñëpp ñu toog ànd ak dal ñu toog ànd ak dal kilifa yi ndigal lii lañ joxe woon jëfe nañ ko. nee na ñu shérif nee na ñu toog tàmbali xadra bi. Mhm. suñu paree mi ngi ñaan bu kenn dem ndax wasifa wi itam ci la bokk. ñëpp teewe ko ñu ànd koog moom occasion la boo xam ne mbokk yi bu mu rëcc kenn ñu bokk toog déglu ko ba mu pare ba ñaan ñu door a taqali ko. macha allah kon mi ngi noonu ndigal laa ngoog ne ñëpp toog ànd ak dal baagante bi. ñu dimbale ñu si ñu toog ànd ak dal xadara boo xam ne yaa ngi ko bokk ak xalifa Seydina Cheikh Ahmed Tidiane ca Maroc bokk kook xalif général de Tidiane Serigne Babacar si Mansour ndawam a ngi ni toog di Pape Mansour si Dabaax bokk koog njabootu maam Abdoulaye Niass Cheikh Arabi Niass mi ngi nii toog bokk koog njabootu Cheikh El Hadj Omarul Fouti Serif Maki Haydara teewal fi Thierno Bachir taal mi ngi nii toog su ma tuddee ñu tudd naa ñëpp ku teew ci xadara boobu noonu le war nga amaat beneen yëg-yëg bu bokkul ak ba nga daan yëg ca xadara ya nga daan toog kon lu ñu am ci ma ak dal nañu ko def ñu bàyyi Serif mu ubbi su ko defee ñu tàmbali liggéey bi ku dul caméraman yi taxaw ku àndal toogal waxtu wi jot na ba ci mbokk yi ci koskaas ak ñu ngi leen di ñaan nañ ànd toog ñu àndandoo dal ñu ngi koy ñaan ñépp te kàddu yi buñ tàmbalee na nekk benn muy tudd yàlla jigéen ñi seen baat bu mu jub góor ñi yëkkati seen kàddu jigéen ñi wax leen ndànk ñu ngi leen koy ñaan ngeen defaraat seen muuraay seen toogaay nëbbaat seeni awra bu baax ngir wormaal bërëb bi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 الجبار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقادم لما سبق الصراط العظيم والهادي إلى صالح المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقادم لما سبق الصراط العظيم والهادي إلى صالح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 la ilaha illallah Allah Allah Allah Allah Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله جلاله ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والختم لما سبق نصر بالحق والهادي إلى صادق المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم ما سبق نصر بالحق والهادي إلى صادق المستقيم قدره ومقداره عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى العالمين هذه هدية بفضل الله منا إليك يا رسول الله جزى الله عنا نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وجزى الله عنا شيخنا وسيدنا قطب المكتوم والبرزخ المختوم مولانا أبا العباس أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا بآمن وجزى الله عنا شيخنا وسيدنا ومربينا ووالدنا ومولانا الحاج مالكا رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا بآمن ورضي الله عن شيخ التجاني الرحمن ومن لنا إليه وصيل كاشف الغمم wa man taallaqa bil adyaali qaatibatan sub alayna ilaahi abu hurra al isami wa kulli man talabu saaliha daawatina wa gayrihim min zawi al iimaani kullihim faqbal ilaahi yaa rahmaanu tawbatana bil fadli wal juudi wal ridwaani wal karami kadaa usuuli wa ahbaabi usuuluhum وتممهم رب تعميما بذي الحكم ومن لنا محسن ومن نصيء له يا ربنا ربنا يا واسع الرحم وما نؤدي من الأذكار جملتها فاقبل لنا بهم يا فارج الهمم إلى الله نشكو ما لنا من مطالب هو المنعم المعطي جميع الرغائب فمن شاءه يعطيه ما شاء تفضلا عليه فإن الله مولي المواهب عبيدك مولانا لدى الباب قدعا فيسر لهم ربي جميع المآرب لك الحمد إنا شاكرون جميع ما علينا به أنعمت من كل جانب علينا فتب يا غافر الذنب رحمة فقابل توب أنت من كل تاب على حب الرسول وآله وشيخي أبي العباس مهدي المراتب أذقنا شراب الأنس واملأ قلوبنا بنورك يا رحمن واستر معائبي صلاة إله العرش مالك أمرنا دواما على الهادي وآل وصاحبي ألا يا سرور النفس البدر يا غاية المنى ويا ملجئي عند اشتداد النوى إبي أغسني أغشني يا ملاذي فإنني على بابك الأعلى أنحت ركائبي سلام عافاس ففيها أحبتي وفيها منى قلبي وأقصى مآربي وأودي سلاما يملأ الأرض والسماء إلى حضرة التجاني بحر المواهب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب يا يا أولا يا آخرا يا ظاهرا نور بصائر عبدك المتضلل لا يبطلن الله جل جلاله ببرية الإعراض عن ذاك الولي لا يبطلن الله جل جلاله ببرية الإعراض عن ذاك الولي لا يبطلن الله جل جلاله ببرية الإعراض عن ذاك الولي فنج ونجنا يا قريب الشيطان من كيده وصلب الإيمان وجورة السلطان والجيران يا ربنا ولفحة النيران وكل معضل عن الطاعات يا ربنا فاقض لنا الحاجات وشل حاصد وحاصدا وقيد كل كائد وكائدة ومفسد بالدين والقراءة يا ربنا وموجب الشقاوة وثقت بالله وبالكتاب وبالنبي المصطفى الأواب أدعو ببسم الله والمساني وآية الكرسي ذي المعاني وسورة الإخلاص مقاصد التمجيد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 bu ñu jullee li xalifa bi wax léegi wax ko sëriñ Pape Makhtar laataa ñuy xadara mooy na ñëpp toogaat ñu wasifa julli gee soog di yeewiku loolu mooy ndigalu xalifa bi bu ñu jullee timis nañu toogaat ñun ñëpp ñu àndandoo wasifa julli gee xalifa bi ñaan ñu dellu ca kër ya Muxtaar Jóob noddal may ma ma jege imam bi fële. baal baal ma baal. may ma ma jege imam bi waaw. waaw micro bi laay indi. est-ce que est-ce que gudd na. calme ah. micro bi micro bi laaj. waaw ah, taxawal ne rek. allahu akbar allahu akbar allah allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illallah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 أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على الصلاة حي على الفلاح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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر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 assalaamu aleykum assalaamu aleykum wa rahmatullah assalaamu aleykum wa rahmatullah laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu mbokk yi bu ñu defee baqiyaatu saalihaat ñu teg ci gannaaw fatiha salaatal fatihi qul huwallaahu ahad fukki yoon ak benn ak juróom-ñaari ina ansalnaahu ñu def ko addi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi ak i saxaabaam def ko addiya Seex Sidi Ahmad Tijaani ak mboole muqaddamaam waaye ñu yéene yiw bi yàlla sotti ko ci kaw sëriñ Abdul Aziz Al Amin mi sosoon lii waaye it sëriñ Pape Malick Sy mi nga xam ne moo mujj ànd ak ñun xadara bi ñu yéene waale ko ñaanal ko yàlla taxawaay bu rafet la amoon gannaaw sëriñ Abdou ci dundalaat xadara bi amoon yéene yu rëy rëy ci jëmale ko ca kanam a kanam ah, sëñ Pape Cissé mii am na lu bari lum ci xam kon ñu ñaanalaale ko waaye ñu yéene képp ku daan teewee xadara bii te yàlla jëlee fi ñu ñaan yàlla yal na yàlla yeesal njëgal ak yërmande ci sa kaw ñu jàng dog bi ngir yàlla gannaaw fatiha salaatal fatih qul wallahu ahad fukki yoon ak benn ak juróom ñaari inaan salnaaw bu ñu noppee ñu wëlbatiku rek def wasifa julli wasifa mbooloo tiyaaba ji ci nekk ñu dabu ko ak julli mbooloo euh, ci waxtu gee bi ñaar yooyu yëpp ñu dabu ko booleek ñaan yàlla liñ fi indi ci soxla yàlla faj ko bisimilah ñu jàng dog bi mbokk yi suñ paree ñu defarawaat Chérif nee na ñu bàyyi xel wasifa wi waaw mi ngi koy ñaan na ñëpp toog ni ñu bokke woon xaylala bi ñu bokke ko wasifa wi ñu ngi ñaan itam beneen yoone bu ñuy ñu bàyyi xel waxtu wi ñuy tëj xaylala bi ak ñaan gi ak timis gi dugg nañ ci timis gi lu bare bare bare bari ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax di teel a arrêté a ñaan mën a nodd balaa waxtu wi timis bi jot fa tabarakallah ñu defaruwaat nañ xëccaat mbalaan mi mu ñëw ba nii sidna wajib lakumullah bismillah

allah allah delluwaat ñaan nit ñi dal ñu ngi tàmm na ñëpp dal nañ toog. kii séddale lekk na bàyyi ba ñu pare kii lekk na ñu toog na ñëpp dal. ñu toog ñu tàmbali wasifa wi. kii séddale lekk yi kii séddale lekk yi na arrêté ba ñu mu ne bu ñu wasifaa ba noppi sëriñ Pape Makhtar Kébé nee na bu ñu wasifaa ba noppi ñu bàyyi surafaawu yi ñu ñaan. sëriñ ñun ñëpp ñu taataan bu ñu mu ñaan. dal na ñëpp toogaat yegg suuf ànd ak dal ñi ngi tàmbali wasifa wi bismillah Seex Abdul Aziz bismillah a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin أنعمت عليهم وصغير الله عظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وصغير الله عظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وصغير الله عظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وصغير الله عظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وصغير الله عظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وصغير الله عظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وصغير الله

القيوم الصغير الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الصغير الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الصغير الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وبقى الختم ما سبق نصر الخلق لله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكفاية عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق نسير اليقين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق نسير اليقين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الفجر ما

يقم والذي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق العقيم والذي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح

لما أولم هذا القدر ما سبقنا سرق بنقيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفرح لما أولم هذا القدر ما سبقنا سرق بنقيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم نبينا محمد القدر مع ولقاء القدر ما سبق نسمع بالأقر والآلي وأصحابك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد القدر مع ولقاء القدر ما سبق نسمع بالأقر عليك حق قدره ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق نسبق اليقين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق نسبق اليقين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى الذي حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفرج لما أغلق والخلق لما سبق نشرح بالعقل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفرج لما أغلق والخلق لما سبق نشرح بالعقل والهادي

للفتح لما أغلق والختم لمن سبق ناس عقل عقل ولا هادي أصفر المستقيم وعلى أيدي حق بالإكرام الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد للفتح لما أغلق والختم لمن سبق ناس عقل عقل ولا هادي أصفر المستقيم وعلى أيدي حق بالإكرام الله العظيم اللهم القدر للبدر لما أولم والقدر لما سبق نسبق بحقه والهادي بأصواتك المستقيم وعلى هديه وقدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد للفرح لما أولم والقدر لما سبق نسبق بحقه والهادي بأصواتك المستقيم وعلى هديه وقدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد للفرح لما أولم ما سوى نسمع يقيم لما صبر قد سبق اليقين والهادي الى صراطك المستقيم وعلى هديك قدره ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولقى والخطر لما سبق قد سبق اليقين والهادي الى صراطك المستقيم وعلى هديك قدره ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولقى والخطر لما سبق

صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الحق لما سبق الناس بحق حقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الحق لما سبق الناس بحق حقه والهادي Chérif Chérif. Chérif. waaw. amiin. amiin. amiin yaa rabbal aalamiin. amiin yaa rabbal aalamiin. amiin. ñëpp wax amin Serif a ngi ñaan. amin ya rabbal alamin. amin ya rabbal alamin. اللهم افتح لنا باب باب السعادة باب غنى ربنا من الطعام ربنا عن الناس ربنا من حيث نحتسب اللهم يا رب وسعنا في رزق ترنا باركنا فيه قرب لنا اللهم احفظ ذريتنا اللهم اهد ذريتنا الى طريق الخير ما تحبه وترضى اللهم ابعد عن ذريتنا وفقاء السوء واصحاب السوء اللهم اعف عن ذريتهم جميع المحرمات يا كريم اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم سبقنا بالايمان والاسلام وحفظ لك جميع المسلمين والمسلمات مؤمنا المؤمنات سكننا واياهم فاسح جناته تؤمن بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ سيدنا رضي الله تعالى عنه في النكير من دون حساب لا عقاب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 Mansour si mu alxaaji Abdul Aziz Dabaax mu ngi nii toog ñaareel bi Chérif Abdul Muttalib dafi yabal njabootam doonte juróomi minit la ñu ñaan leen mu sànni kàddu sëriñ Mansour si baax yëkkati kàddu xalifa bi ñu julli gee tasaaroo ñu ngi leen koy yalwaan ngeen dal ñu lalli malaan bi après waaye nii ñu toogee woon di wasifa ngir yàlla toogee leen noonu bi ci des surafaaw yi yelloo nañu hadiya ndax seen maamkat bés bii mu ñu defal tàkkusaan gi am na lu yelloo kon ki Chérif Abdou Moutalib yónni ñu ngi koy ñaan ci juróomi minute mu tënkal ñu kàddu su paree ñu jox sëriñ Mansour si dabaax mu yëkkati kàddu ñu julli gee tasaaroo loolu daal ñu ngi koy ñaan ngir yàlla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 wa alihim wa sahbihim wa radiyallahu an alxutbi maktuumi cheikhina tijaani wa an walidayhi wa azwaajihi wa abnaa'ihi wa durriyatihi wa xulafaa'ihi wa muqaddamihi alkiraam wa talaamiidihi wa jamiici akaabiri haadihi tariqati alahmadiyati almuhammadiyati tijaaniyati wa radiyallahu taala an jamiici awliyaa illaahi taala wa cibaadihi saalihiin amma baad saaxiba sharafi wal majaadati wa sa wa saada wal fadilati sayidi wa cheikhi wa mawlaaya sayidi Mouhamed El Kabir ibnu sayidi Cherif Sidi Ahmed Tijani ibnu sayidi jaddikum wa samiyikum Mouhamed El Kabir ibnu sayidi jaddi jaddikum Mouhamed El Bachir radiyallahu anhu anhum ajmain wa huwa ibnu sayidi muhammadin alxabib wa huwa ibnu alqutbi rabbani cheikhina abil abbas ahmad tijaani assalaamu ala maqaamikum alaali assalaamu min qalbi wa ruuxi sayyidi wa cheikhi abi bakrin si ibni cheikh alxaaji muhammadin almansuur si samiyi wa ammi ibn Cheikh El Hadj Malick Sy jaddina alladi kaana uh, min man fi lxaqiqati yamla'u mala allahu qalbahu bi xubbi bi xubbillahi wa xubbi rasulihi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa bi xubbi cheikhina tijaani jaddikum alladi huwa cheikhuhu wa bi xubbi wasaa'ilihi ila cheikhina tijaani xaalihi alfahima yorowele alladi huwa tilmiidu cheikhina cheikh alxaaji omar alfouti taal radiallahu anhu wa huwa aydan alladi warisa ma warisa bi fadlillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa bi nasihatin min cheikhina tijaani an cheikhihi sayidi mohamad alxaali bu taalib alladi يعرف الجميع أنه كان من أقرب أحباب شيخنا التجاني إلى قلبه الشريف وتلاميذه وفقرائه المميزين الكبار المخلصين له في حمل هذه الأمانة التي أوصلها الله إلى هذه الديار السنغالية بمختلف الزوايا التجانية التي يكتمنه يكتمنها ويضمها بلدنا السنغال wassalaamu ala ashrafaai al akramin alladina ataytum maahum walmuqaddamina wa al asatidati wal ulama alladina ataw maakum fi hadihi alziyarati almubarakati allati tasadu yasadu biha watanuna alsénégal alladi huwa watanukum athani wa yasaadu biha fadilatu cheikh السيد أبو بكر سي الذي أوفدنا وأرسلنا لكي ننوب عنه وحملنا هذه الكلمات التي حقت أن تكتب بماء بماء الذهب لاستقبال مقامكم العالي والسامي إن شاء الله كما نسلم على سعادة الوزير السيد عبد الكريم صل الذي أتى حاملا كلمة مع ابنتنا صاحبة المعالي الوزيرة نيني فاطمة تال التي هي وزيرة الشباب في هذا البلد السنغال أما السيد عبد الكريم فهو وزير البيئة نعم آه ومعه ومعه آه باش هذه هذا الإقليم الذي نحن فيه نعم le préfet de ce département أيضا قد قد أتى معه ومعهم أيضا معهما أطر وكوادر من المجلس المحلي ومن الدولة نائبين عن صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الحاج مكي سال alladi fi lxaqiqati yu'na bi yahtamu kasiran bi hadihi dikra allati yaxtafilu biha haulai al ixwa min almuslimina wal axawat altijaniyina waltijaniyat bi fadlillahi wa bi fadli aljuhud almustamira almuxlisa allati yaqumu biha fadilatu cheikh al imam Mouhamed Fatah Sarr wa axuhu wa sinwahu alxaaji Mouhamadul Muxtaar Sarr wa jamiu man maahum min alrijali walnisai walzukuri walinasi walkibaari walsigar walshuban xaasatan haulai alshabab alladina malaa allahu qulubahum bi xubbi cheikhina tijani wa bi xubbi jaddihi sal allahu alayhi wa sallam wa bi xubbi ma aata allahu sayidana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa ibnahu wa warisa sirrihi cheikhina tijani radiallahu anhu fa marhaban wa ahlan wa sahlan bikum bismi alxalifati sayidi wa cheikhi abi bakrin si alxalifati alam li tariqati tijaniyati bi diyaarati sénégalia wa bi wa marhaban aydan bi eh, bismi sinwayhi alladaini yuhibbaanikum wa yuhibbuuna cheikhna tijaani wa zurriyatahu wa yuhibbuuna kulla man yantamiq ila hadihi tariqati alahmadiyati almuhammadiya tijaaniya kama yuhibbuuna jamia almuslimina bal yuhibbuuna yuhibbuuna xalq allah li anna allah amarana an naxtarima aljamia wa narxama aljamia wa naftaxu qulubana ah, liljamii wa nuhanni lahum kullama wa natamanna lahum kullama natamanna li anfusina idan sëñ Babacar si xamalana hadihi ar risala wa talaba minna an nuballighaha ilaykum wa nurahiba bikum fi baladikum as-Sénégal مع هؤلاء الشرفاء وكل من حضر معكم في هذه الأمسية النيرة المباركة allati ammaraha allahu bi dikrin tayibin muxlisin min arwaxi wa quluubi wa afidati hadihi aljamaa allati ijtamaat li dikrillah talbiyatan li amri mawlana azza wa jal alladi qaala fi muxkami tanzilihi fadkuru llaha dikran kasiran wa sabbixuhu bukratan wa asilan huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min alzulumati bilmumin min alzulumati ila annuur wa kaana bilmuminina rahiman taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam adaama allahu fi qulubina wa fi afidatina wa fi jawanixi ajsamina alrahba al akida allati nuridu biha an nakuna mutamassikina bi hadi bi diinillahi wa bi sunnati rasulillahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shariatihi wa bi sunnatihi al-gharra wa bi tariqati cheikhina tijaani jaddikum radiyallahu anhu wa bima warisna an ajdadina wa abaina wa ummahatina wa salafina alladina sabaquna fi hada darb wa ala hada darb ila an laqawallah wa nasalu an yakuna allahu an yakuna allahu mawlana wa tabaraka tabaraka wa taala radiyan anhum wa an yakunu radiyina an rabbina azza wa jal bi barakati qawlihi subhanahu wa taala inna alladina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayru lbariati aw xayru lbariyati jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min taxtiha al anhar xaalidina fiha abadan radiallahu anhum wa radu anhu kittu aqulu bi anna ma sami'tuhu wa ana fi tariqi ilaykum fihi alkifayatu fi alhaqiqati فيما يتعلق بالكلمة الطيبة التي ألقاها على مسامعكم ومسامع الجميع ابننا وابن الشيخ الخليفة سيدي محمد المصطفى سي ابن الشيخ سيدي عبد العزيز سي الأمين رضي الله عنه كما استمعنا إلى كلمة طيبة من ابن عمنا الشيخ محمد المنصور مبي الذي يعد بحق يعني أرشيفا لهذه في هذا الوطن ولهذه الطريقة وللإسلام ولكل ما تمت بصلة إلى الجوانب الإنسانية والوطنية في هذا البلد السنغال كما استمعنا ونحن في الطريق إلى تلكم الكلمة الطيبة التي ألقاها معالي السيد الوزير الحاج عبد الكريم صل نسأل الله أن يباركه أن يبارك فيه وفي من أرسله أعني به الشيخ فخامة الرئيس الحاج مكي صل ونسأل الله أن يبارك في حكومته وكل من ينتمي إليه وفيه هو ومن أتى معهم ومن أتوا معه naa'ibina an faxamati rais kama natadarau ila allah subhanahu wa taala an yuakkida wa yuxsina daiman wa yumtina alrawabit al axawiya alruxiya walmaadiya walsiyaasiya waliqtisaadiya waldiiniya allati jamaa allahu xawlaha البلدين الكريمين المملكة المغربية الشريفة والديار السنغ... والوطن السنغالي في الحقيقة هذا مطلوبنا ولقد استمعنا إلى كلمتكم السامية التي ألقاها باسمكم صاحب المع... صاحب الفضيلة والمعالي الإمام الدكتور عبد اللطيف السيد عبد اللطيف بكدوري wa tilkumul kalima kalimatun shamilatun jamiatun ijabiyatun bi kafati jawanibiha wa laqad wa laqad tawalla tarjamataha aw tarjamata ajzaa minha min hadihi alkalima ila masami aljami axuna wa sayiduna wa cheikhuna wa xabibuna papa moxtar kebe alladi huwa ibnu ammin lii kama anna walidatahu ibnatu ammin lii fa huwa axun lana wa ibnun lana fi anin waxidin كما أن السيد المصطفى سي ابن السيد عبد العزيز الأمين ابن للشيخ أبي بكر سي الذي أوفدنا وحفيد له لأنه من جهة والدة السيد الخليفة ومن جهة ومن جهة والدة السيد عبد العزيز الأمين بينهما صلة قرابة منذ قديم الزمن wa sëriñ Babacar Sy min min tilka al jihati addamawiyati wa tilka rabita xaalun li alseyid Abdul Aziz Al Amin fa lidalika qultu bi anna Muhammad al Mustafa ibnun li xalifati wa xafidun lahu wa yashhadu al xalifatu bi annahu qad radiya anhu bi sababi adabihi al jam wa waracihi wa zuhdihi wa taqwaahu waljuhuud almuxlisa aljabaara allati yaquumu biha maa kacirina min abnaai hadihi al usra alkarima wa hadihi zawiya tijaniya almalikiya fi tiwaawan fi sabili توحيد الكلمة وفي سبيل رفع راية هذا التراث الضخم الذي ورثه سلفنا الصالح خاصة الشيخ الحاج مالك سي وكان ومن ومن كانوا معه من أشياع شيخنا التجاني وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة أبناؤهم الذين ورثوا ورثوا هذه هذا التراث الضخم عنهم وأحفادهم ولقد أوصل الله هذه الأمانة إلى أكتاف هذا النشأ وهذا الجيل الشاب وهؤلاء الفتيان alladina nasalu allah an yajalahum mahfudina min indihi subhanahu wa taala wa an yaklaahum wa an yarcaahum wa an yakuna lahum cawnan wa sanadan kama kaana allahu cawnan wa sanadan li ahli alkahf alladina qaala allahu fi xaqihim innahum fityatun aamanu bi rabbihim wa zidnaahum hudan nasalu allaha نرجو منكم أن تدعوا الله لهم جميعا إن شاء الله وأما هؤلاء الإخوة الذين أتوا يحملون ما لا تعد ولا تحصى من الحوائج الجمة ومن العزائم ومن النوايا ومن المشاريع في هذا الزمن المتوتر الذي يصعب فيه يلقى فيه الشباب الشبان صعوبات جمة فيما يتعلق بمستقبلهم الذين يريدون ان يكونوا الذي يريد يريدونهم جميعا ان يكون هذا المستقبل مستقبلا نيرا باهرا يحقق لهم الاطمئنان والطمأنينة والسؤددة wa siqata billahi wa bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa bi wa siqata aydan bima yajibu alayhim an yaqumu biha min al a'mal allati amara allah subhanahu wa taala wa ibadahu ibadahu an yaqumu biha wa an yaarifu bi anna hadihi al amana amanatun min indillahi subhanahu wa taala wala wala yastati'u ahadun an ya'mana lahum wa an yuyassira lahum adaa hadihi al amaana siwa allahi subhanahu wa taala li annaha amaanatun tajmau dunya bayna dunya wal axira fa lidalika nasalu allah subhanahu wa taala an yuwaffiqahum kama narju minkum saaliha duaai lahum wa li hadihi hada al iqlim min ifriqiya likay yutfi allahu niiraana al xuruub wa niiraana الأعمال الإرهابية التي تهدد الجميع ادعوا الله لكي ببركة جدكم الكريم شيخنا التجاني وجدكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يحقق الآمال والأمنيات والنذور ويؤخر الآجال كما كان يدعو عمكم يا باب مختار الشيخ الحاج عبد العزيز قيد حياته هذه هي الكلمات التي حملناها مع كل من أتوا معي li uh, adaiha amamakum wali uh, wali qiraatiha amamakum ya fadilat alcheikh saydi mohamad alkabir nasalu allah alladi xamalakum ala janaxi alsalamati walamni walnajati xata wasaltum ila hada albaladi alladi huwa baladukum wa huwa baladun yuxibukum ahluhu wa abnauhu xasatan talaamizukum nasalu allah an yarzuqakum iqamatan mubarakatan tayibatan wa an yujaziya anna wa an alxaaji Mansour Mbay wa an cheikh alxalifa Abi Bakrin si axaana alxaaji Racine si alladi huwa mudiru fun mudirul funduq alladi funduqu méridien alladi nazaltum fihi wa huwa alladi tawalla an hadihi rabitati tijaniyati xamla hadihi al amaana ud'u llaha lahu ani racine si pap racine si bi bi bi tawfiqi wa najah insha allah huwa wa man ya'maluna tahta imratihi fi al muassasa aw al muassasat allati yatara'asuha fi hadha al balad sha'nuhu fi dhalika sha'nu jami'i al mas'ulin al kibar fi Sénégal من الناحية الروحية والدينية والدنيوية والسياسية ادعو الله لكي يكتب للسنغال الأمن والوئام والرفاه والنجاة والنجاح والفلاح والتيسير والحصول على أرزاق واسعة من خبايا وباط من خبايا باطن الأرض ومن أي جهة من خزائن الله التي هو الوحيد الذي يعرف محل تواجدها nasalu allah an yubarika lakum fi hadihi alrihla wa natamanna an tatakarrara sanawatin adida wa azminatan madida wa nasalu allah natlubu minkum aydan an tad'u allah subhanahu wa taala likay yuwaffiqa mudifakum axaana wabnana alxaaji Mouhamed Fattar Sarr mu Mouhamed Fattar Sarr alladi yabdulu qusaara juhdihi fi sabili في سبيل مساعدة هذا النشء وهذه الفئة من الشبان ويدعوهم دائما بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الدين الإسلامي الحنيف وإلى التشبث بحب محبة صادقة فيما بينهم وبين خالقهم ربنا عز وجل وفيما بينهم وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم alladi nara bi ann aglaba man aayachuhu wa nasaruhu wattabacu maahu an nuur alladi anzalahu allahu ala qalbihi kaanu min min kaanu futyaanan wa kaanu min ashubaan fi bidayati daawati wa qabla bidayati wa xata qabla bidayati daawati fa hum fi lxaqiqati rajauna wa amaluna fi lmustaqbal wa hada wa lihada yatlubu minkum samahatu lxalifa an tadcu allah an tadcu allah lahum insha allah Muhammad Muhammad Fattah فضيلة الأستاذ الإمام محمد فتاح وأخاه وصنوه محمد المختار وكل من يعملون معهم للحفاظ على قيم هذا الدين الحنيف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 Mansour jërëjëf barakallah bismillah asalaamualeykum wa rahmatullahi mbokk yi ñi ngi jottali kàddu gu gàtt ci Seydi Abdul Muttalib Tijaani mi nga xam ne tey moo mooy xalifa Seexna Tijaani fii ci Sénégal ak dëkk yi ko wër nga xam ne bis bi bis bu ko ñor la ba tax na mu defoon ci benn appel bu jotal woo ci mboolem bokk yi nga xam ne ba Casamance Saloum ba Fuuta ba Mauritanie fu ci nekk ay délégation wuysu nañ ko fi ci woote boobu ngir bis bi yàlla dogal nag biñ demee ba ci dernière minute moom ak boppam ngantal jëmmut gaar ko waaye jëmmam rek moo teewul mbooleem waa saawiya ba ñii ngeen gis ñi toog fi ay doomam lañ ak i jarbaatam tabaarakallaahu ñi ngi bokkoon ak sëriñ Fata liggéey bi ànd ceeg moom tabaarakallaahu am na fi kuy wax ci kàddum ñi koy wax Seydi Abdul Qadir Kan incha allahu di leen jotalit ne kii de Seydi Muhammadul Kabir mii tey doomu baayam la kon moom moo koy dalal moo pare woon pour ñëw fii dalal ko waxtaan ak moom waxtaan ak bokk yi waaye ngàntu loolu ci dernière minit la gaar te it incha allahu suba jàmm ci samedi ji juma jële ñu tuddee muski Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu Sharif Mouhamadul Kabir ak délégation bi mu àndat foofu lañuy ñuy ji tàkkusaan def fa wasiifa ca wakaam incha allahu Thierno Abdoul Khadir moom mooy wax ci kàddu yi nga xam ne moom la sërif yóbbante woon waaye bokk na ci yi nga xam ne nag ñor na ko mu dénk ko Serigne Fata mii te kerek ci saawiya bi wax na ko ko dellu na ko feddalewaat léegi bi mu ñëwee woo am na ngànt mooy mi ngi koy sant de ko ñaan liggéey bu rëy bii nga xam ne bisu Seex na Tijaan yi la incha allahu beneen yoon nañ fexe ba def ko ñetti fan yoo xam ne àllarba alxemes ajjuma lay doon mu ànd ak ay ñaan ñi jiital ci ay ñaan tëjee ko ko te it bu boobaa nañ faxe ba sous bi bis biñ koy def fii ci ndakaaru noonu lañ koy defee ci Côte noonu lañ koy defee ci Guinée noonu lañ koy defee ci Mali ca Mauritanie bam jeex ci sous-région bi yëpp incha allah ci même suur bismillah Kayrı. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الإسلام إخوة الإيمان الحضور الكرام أصحاب المعالي الشرفاء وأصحاب المعالي العلماء والأئمة وجميع من حضر هنا أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقبل أن أبدأ بكلامي بكلمتي فهذه الجماعة وهذا الجمع الغفير وهذه الأصوات العالية التي كانت تتلو اسم الله سبحانه وتعالى اسم الجلالة ذكرتني هذه الجماعة وهذه الأصوات بقول الله سبحانه وتعالى li ashaabi rasulillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam tabshiran lahum alyawma yaisa alladina kafaru min diinikum fala taxshawhum waxshawun wa nacrifu jamican anna hunaka unaasan juhaalan magruriina yunkiruuna ala hada ala hada alamal wa naruddu ilayhim hada alqawl kama qaala seydi alxaaji malik radiallahu anhu ya ayuha nnaaiqu kayfa tunkiru diyaa shamsin zahiran yantashiru idan man yunkiru hada alamal ida raa hadihi aljamaa wa hada aljamc wastamaca hadihi aladkar bi hadihi alaswaat alcaaliya fal falyadac silaaxahu walyadac lawmahu ala alqawm li yaslama li an laa yuxaariba allaha subhanahu wa taala bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi waliyi alsalihina walaqibatu lilmuttaqin القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا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 wa qaala aydan man dakarani fi nafsihi dakartuhu fi nafsi wa man dakarani fi mala'in dakartuhu fi mala'in xayrin min mala'ihi والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي من الميت وقال أيضا صلى الله عليه وسلم laa yataxassaru ahlu aljannati indahu inda duxulihim aljannata illa bi dikrihim saacatan marrat bihim fi dunya walam yadkuru allaha fiha وعلى صحابته الغر الميامين الذين كانوا يتواصون فيما بينهم ويقول بعضهم لبعض هلموا نحيا ساعة أي ساعة الذكر ورضي الله عن الكبريت الأحمر والولي الأشهر مولانا الشيخ أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعن كافة أولاده الأبرار وذريته الطيبة المباركة المتصلة والمنفصلة وعن خليفته الأكبر سيد علي حرازم برادة وعن كافة الخلفاء والتلاميذ والأحباب wa baad fa innahu بمناسبة فإنه باسم سيدنا وحبيب قلوبنا السيد عبد المطلب التجاني بن سيد محمد الحبيب بن سيدي محمود بن سيدي البشير بن سيدي محمد الحبيب بن مولانا شيخ أحمد التجان الممثل للطريقة التجانية في السنغال وما حولها فعنه أبلغ تحياته الأطرة وترحابه الجميل إلى صنوه وأخيه وحبيبه السيد محمد الكبير بن سيدي أحمد بن سيدي محمد الكبير بن سيدي البشير بن سيدي محمد الحبيب بن مولانا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه الممثل العام للطريقة التجانية في المملكة المغربية الحبيبة طيبة صانها الله وأهلها ورفع شأنها وله سيد عبد المطلب وله بالغ السرور والغبطة أن يرحب سماحتكم والوفد المرافق لكم في هذا البلد الفضيل وهناك أبيات ترحابية ahlan wa sahlan bi najli lqutbi mawlaana bal marhaban marhaban yaa marhaban bikum baxin li maqdamikum waahan li wafdikum wal kullu sakara xubuuran fi xudurikum ida xalaltum bi ardin yastafiidu bikum sukkaanuha min culuubi alqawmi walxikami kafaakum sharafan li kawnikum nasaban min safwati alxalqi maaxi الكفر والظلم كفاكم شرفا لكونكم نسبا من صفوة الخلق ماحي الكفر والظلم بل زادكم ربكم فخرا فخصفكم ختم الولاية يا طوبى لحبكم بل زادكم ربكم فخرا فخصكم ختم الولاية يا طوبى لحبكم فهذه حضرة التجان ليس لها من الشيوخ بثان غيره ولمي وكما يتشرف هذا الوطن العزيز أن يستضيف بكم باسم رئيسه السيد الحاج مكي سل والشعب السنغالي الكريم في تلبيتكم هذه الدعوة العظيمة القدر ومشاركتكم معنا في هذا اللقاء الأخوي الإسلامي الإبراهيمي الحنفي التجاني الذي يلتقي فيه مريد هذه الطريقة لأداء أوراق بأفرادهم اللازمة جماعة التي أي الأذكار اللازمة هي سر الحق سر الطريقة حقيقة وإلى ذلك أشار الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه عليك بالورد وبالوظيفة وعصر جمعة أخلق أخ الطريقة وقدمنها على كل الهمم واستغن عن غير بها نلت الأهم قد ضمن الرسول أيها السؤول الفتح للم المريد حقا والوصول لكنه بذي فقط لا غير فراعيا ياتي إليك الخير وهكذا قال خليفته الشيخ أبو بكر سي رضي الله عنه لازم لوازمه تكفي لطالبها من المنافع في الدنيا وأخراه إذا هؤلاء الجماعة ما اجتمعوا إلا لذكر الله الذي هو من أعظم العبادات كما قال تعالى تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وفي يوم هو من أعظم أيام الأسبوع أجرا وأرفعها قدرا ألا وهو يوم الجمعة وفي ساعة منه وهي ساعة تجلي الله الخالق سبحانه وتعالى لإجابة الدعاء والعبادة تفضلا منه سبحانه وتعالى وآخر ما أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ويقدم تشكراته وتمنياته الخالصة لأخينا محمد الفتاسار ويسلم عليه ويزوره ويدعو له بالخير والتوفيق والنجاح في جميع الأمور كما يوصي الجميع بالاعتصام لحبل الله والتوادد وقطع الفتن والشحناء والبغضاء فيما بينهم هذه كلمة سيد Seydi Abdoul Moutalib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Makhtar Diop noddal ñu julli gee noddal ñu julli gee incha allah jërë ngeen jëf. allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah